xaaral man mi am du yow Binta mbaay man damay xol sen sinam bi sax yow mo am baasin caam di reetaan parce que dama xamne fit rek mo len may li man nak xale bu dugg ci man di nga tera yow Binta mbaay yow li ngay wax mo nek ci yow demu demu bu am fit kat bu ñame mo yow parce que yow togo uuf sa njabot ji sa doomi dañu manke amour amour maternel talo dara ngir wër ci kër yi kër ciaga bu ne yang fa naam drame demo ben kër xale bu baax yaa awa rasul moom nga fekk ji ak Mbacke Ndiaye un ak deux la benn benn benn chiffre doxul seen diggante parce que yaa awa mooy Mbacco parce que li yaa awa def dakaar rek moom la Mbacco def Dakar li li Mbacco répété moom la moom la yaa awa def Dakar yaa awa ci tànk Mbacco la jël kon nag soo leen waxantee seen yu baax war na mën a nekk waaye dama bëgg ngeen ma ne keccat ma ci parce que man mi ngeen di waxal kat man xam ngeen ne duma leen bàyyi ci seen jàmm man duma leen may dara. parce que du ma benn ma nangu benn doomu xaraam buy taxaw naan yaa ngi may gaaral parce que yéen tekki woon. parce que yow li ngay wax moo nekk ci yow yow Binta Mbaye li nga naan dëmm bu am fit fenkat bu ñeme boole nga ci boole caga caga bu am fit caga buy njaaloo parce que yow dëkk boo wàcc kattan nga fa yow Binta Mbaye bàyyiwoo pare bàyyiwoo benn sikk kon man yow soo toogee dama gaaral sa ñàkk jom nga te nag pare gu ma de man ak yow ba épisode 146 maam baasi nag yow yow soo toogee te nga xam ñuy kaf di di kaf di di ambiance. yow nga ne man nga toog di gaare yow sa ñàkk jom la maam baasi yow maam baasi caab yow soo toogee nga ne am zoo ngay gaaral sa ñàkk jom la man mënu ma mënu mënu comprendre sénégalais yi kan mooy kan parce que doo xam kan mooy kan kii kaf yow léegi ki lay wax lu baax léegi kii kaf ak yow kii reeg yow suba kooku la mun a xaar tagal say maam yow mel na maam baasi caab yow benn nit bi yaa demat ci mbàcco nga tagal ko ay maamam man xamatuma ci kaa bi dara kaa bi daal dafa critique may leen ma jàll balaa oto ma tël daa ork ba e eh, stop defal ndànk damay jàll parce que cas bi daal dafa garaaw fi ne nii waaw man xamatuma lan mooy lan nañ ma baalal daal lii daal doy na waar parce que comprendre Sénégal kan mooy kan ki lay tagg léegi wax la lu baax taggal la say maam su xaalis bi ñëwee ñaari junne wala ñetti junne maa bëgg nit ku diñ ku dul jaay ngoram maa bëgg nit koo xam ne day ànd ak nitu démbam tee nitam ba faw ba na tukki man na faaloo ma benn xale xale bu ma woo soo bëggee dugg ci coow li acca nañ ko maye je suis à tout moment ma daanu sa kaw ma ragalu ma dara aw ma tiitukaay ci réew mi bokk di judd xoolal du ma judd jéeri du ma ma dem taax Kaolack laa juddoo fa laa yoroo mboosee sama maam abu ma juddoo ab ma nationalité li ma yor maa ko moom dama ne xale bu pare pare naa dooma daa max ngeen man ngeen di gaara acca na neex du da ngeen a ñàkk jom nga ne bëggoo leen seen bakkan bi amoo leen loolu di tiit amoo leen di ragal man xale bu ma gaaro di dégg musiba mbaatu moom ngeen di faral fii seen na fii na yem eh, eh, eh, ak ak nu mu tudd ak mbaatu que li mbaatu kattante ci Sénégal loolu la yaa man xale bu ma gaaro dégg musiba moom ngeen di faral fii seen na fii na yem ak ak nu ak mbaatu ñoo bokk maa li mbaatu kattante ci Sénégal loolu la yaa awa def yaa awa da bëgg ma limal la aca na neex du dañ la dugal sama gàdd nga ne da ngay dugg wax lu toll ni guddi Seydina Limaamu Laay ne guddi euh, guddi Seydina Limaamu Laay nga ne da nga woote tànt yoo xamoon nga ne riir gii Seydina Limaamu Laay dina mer daa ko sa kaw yoo xam nga ne riir gi di ko am yoo xamoon nga ne ak ak Seydina Limaamu Laay dina leen dal yow nga fa nekk di taaxuraan lu toll ni guddi yonent guddi yàlla ngeen war a sant war a war a war jàpp julli di wedd daa di daa di téye kurus bi laay laa ilaaha laa ngeen toog di di di di di ngoyaan di xalam di riiti yéen xamoon ngeen ne ku mel ni am Amzo dina génn kat seen ndey man nag yow Binta Mbaay yow maam Baasin sax ma ko jëlee parce que man maam Baasin daf ma bett xam nga lu tax maam Baasin bett ma parce que man maam Baasin sama nit la bu ma jege kon maam Baasin moo waru toog sa di ma gaaral moo mu naan ah xale bu ne mbaaco kan lay nax xale fii xale bu ndeyam sëy doo ko wax ñi seen ndey sëy waxuñ ko ñi seen ndey sëy génnewuñ seen taat ñi seen ndey sëy am doo saagawu leen ñi seen ndey sëy amuñu riir mbaaco nag gisuma lu ndeyam sëy mari siise ana lu mu sëy man dugguma ci gaamu kenn xale bu dugg sama gaam dootu ko defati xale bu leb sama coow teg ko ci banque bi di nga lijjanti loo loo loo fayee crédit bi maa la wax lii xale bu leb sama coow dugg ci banque yi di nga wut loolu yéen a yéey nag parce que bor yi dafa bëri ci yéen auto yi ngeen di dawal yëpp auto leb la or yi ngeen di takk yëpp banque bee leen ko lebal bor yee bëri moo tax ngeen di tiim seen na la su teyee soo ko yàqee su subaa ngeen ànd ak moom daal di ko bakkal ay maamam parce que li ngeen yenu ngeen moo diis seen sëy sëy taati neen la yaa ngi dégg seen sëy yi ngeen di sëy ni sëy taat neen la te bu leen ma tax a wax nag li ma xam dafa bëri de man juddu jéeri laa <laughs> man mii ci réew mi laa bokk Sénégal googu dama faa am pas de responsabilité soo demee maire bu kaw la fekk fa sama kayitu juddu wax dama ne sénégalais cent pour cent ngeen di waxal ci réew mi laa bokk. man <laughs> man dara umbu ma ci réew mi lu ma war a wax rek dama koy wax xam nga lu ma bëgg ngeen may seen boppu jàmm may leen seen boppu jàmm ngeen na man ngeen di gaaral. yow moom Binta Mbaye lii lancement la film bu ñëw Mame Bassine yow à suivre comme yow Mame Bassine yow yow yow yow yow yaa seetu li ngay wax nga ne mbaaco nga dem noonu moom. wax ba di ma ci gaaral aca na neex su deeru su tàgg di rus man xale bu duul sama kër goro dootoo ko defati man sama ndey sa su ma defee lu moo war ta def damay def règlement de compte bi xanaa lan la fii àddina la ndegam yow mi amul lóoru su deeru su tàgg di rus xët ba di data jigul kooy soo ma xëtee ma xët la mbirum xëtante la na neex yow moom yaa awar sul xaaral sa épisode à tout moment mën na génn yow li mbaa ci am Sénégal nga am Sénégal yow forom randam randam randam laa laa lay limal forom randam xaw ma randam ca ca ca ca groupe waali ba fa laa lay limal wàcc ci suuf jëm ci autorités yi jëm ci député yi jëm ci ministre yi ba pare yow yaa aw lu ma wax ci yow rek dafay dafay des yow yéen war ngeen taaw ne man ngeen tàndaa yéen seen ñàkk jom la man mii man mu pare mu am fit mii yéen lii